Euh, abstention bi 63 pour cent la woon mais démb dégg nga euh, euh, du doonu nii di wax 98 pour cent mais sans sax ñu am baromètre bi rayal mhm. xam nga yow li yow rek en tant que citoyen lambda lay wan ne taux de participation bi yëkkati jóg na élevé wu na xoolal vote bi am na bureau yoo xam ne ba tey seen PV génn gu mhm. am na bureau yoo xam ne kon nañu au de vingt mhm. xale yi di rang xoolal profit ñi ñu fal xoola profil ñu ñu fal ñu bëri yeewu askan lañu fal gis nga euh, yeewu askan bi ñu fal nag c'est le projet c'est la demande sociale voilà boo xoolee bu baax euh, bu weesoo seen seen offre beeg seen nangam ak nangam li ëpp solo sénégalais yi ñoo ne tout sauf Macky Sall en réalité c'est Macky Sall qui vient encore de subir une raclée de la part des sénégalais qui lui ont dit en mars de l'année dernière président Macky Sall attention les Sénégalais lui ont montré un carton jaune. Mm-hmm. bi mooy beneen carton jaune xam nga deux jaunes la. deux jours man man xaw ma dañ ci sport mais defe naa après. Euh, rouge moo ci topp rouge bi xam nga kañ lay <laughs> euh, tout à fait euh, Aïssatou naufrage Benno Bokk Yaakaar on peut parler de naufrage parce que mm. les grandes villes yi nga xam ne mun nañu wax ne moo nekkoon benn enjeu bu doy waar mu nekk li nga xam ne mooy Dakar et la majorité de ses communes Ziguinchor et son département Rufisque Sangalkam Tivaouane mm. Thiès Bignona Kaolack Tambacounda yëpp dafa basculer si mais yeewu askan wi. Mhm. Macky Sall moo doon wax ne day réduire l' opposition à sa plus petite expression. est ce que tey jii nekkul ne euh, yeewu askan bi moo réduire euh, le pouvoir en place à sa plus petite expression. mais si euh, gis nga ma fille li ma la wax la. Mhm. Macky Sall. est vraiment l'arroseur arrosé. Mm -hmm. il est tombé dans son propre piège. xam nga élection locale yi bu ko leeroon ne. da mhm. koy nee demee du ko c'est vrai il a tout fait. Euh, pour s'assurer une victoire éclatante ba mu mhm. demee ba wóolu boppam ci la ko organisé mhm. mais xam nga dafa fàtte donn yàlla mhm. mais aussi fàtte sénégalais xale yi xale yi ñoo voté booy yi ñoo voté ah te xoolal xoolal ñi ñu fal ay xale lañu fal ñu majeure partie ay xale lañu xam nga euh, li ma la wax tout le temps gis nga euh, keroog wax naa ko wax naa ko fii ci ba ñu découvrir xëy suba rek ñu découvrir sàcc yu metti bande yu wëyu yi nga xam ne moom la ma Sall fal ci ay direction générale ay mhm. poste ak ay et cetera yu bëri yooyu ay scandale yoo xam ne du jamais vu mhm. ma taxaw wax loo xam ne ba tey dégg naa après ñëpp reprendre ko mhm. te ñëpp man maa maa ko fi ñëkk wax te ñu weddi ko ñu gëm gëmuñu ko après lañ ko doon gis mooy fin de règne xam nga boo nekkee ci fin de règne yëf yi waaj a jeex gars yi xam nañu dootuñu euh, dootuñu déggati wiiw dootuñu déggati moi monsieur c'est vrai bu ñuy sàcc giiroo la bu ñuy sàcc dañuy dugal loxo tànk gémmiñ bët nopp lépp la dugal di sàccandoo xam nga foofu Macky Sall foofu la njëkk a lajjee mooy mooy li ma la wax ne Macky euh, euh, moom gis nga bii nii euh, bu xoolaatul boppam mu war a feeñ na ci la muy namee ci gouvernement bi bu bees bii mooy te chaque jour mu ko ba muy jël sa réew mi il l'a pris d'une manière honorable mais bu deful nànk buy buy buy buy génn ci réew mi bu ñaaw lay génne parce que xam nga lu tax bay bayal bi ak fooye xelam dafa ne sénégalais lay nax te fekk boppam lay nax mooy li nga wax. da nga joxtu ne dafa war a amaat. non mais mais mais c'est obligé mu amaat parce que xam nga lu tax. Mhm. parce que euh, sénégalais dañoo mere Macky Sall mere gouvernement sanctionné ko vote sanction la. Mhm. xam nga yeewu askan wi ñoo gagné. Mhm. Euh, waaye li ëpp ci li ñëw li tax ñu gagné mooy déggoo may la li xew mars laa lay wax. mais xoolal yeewu askan wi. ña sànq gis naa nga teg benn photo fii voilà. Euh, leader yi nañu dañ euh, euh, delloo njukkal Ousmane Sonko. c'est vrai ak Barthélémy Diaz. c'est vrai majeure partie bi yëpp keroog laa waxoon ma bàyyi am ak sama <laughs> bàyyi ay mboj mer. mais ñoom ñëpp lan lan moo leen tere. moo tax rëccu nañ ko je suis sûr je suis sûr moi que waa yeewu askan leader yeewu askan yi nga xam ne présenté wuñu seen candidature ci yii. Mhm. rëccu nañ ko parce que ils ont raté le coche. c'est vrai parce que lii am dootu amati. mooy li ñuy wax ne ku gis nga ku bu la yàlla tàccoo nga bañ a fekk dootoo raas gi parce que. ñii parce que gis nañ des personnes qui sont sorties de nulle part. mais moom la ko xoolal ñoo xam ne kenn xoolal kenn xoolal kenn xamul ki nekk euh, Parcelles Assainies kenn xamul leen. kenn xool si xool des des gens sortis de nulle part. xam même le jeune homme qui est à Yoff aussi. Seydina ah <laughs> sama jarbaat la Baye Seydi macha allah sama la. macha allah <laughs> sama Adja Maam Kumba mooy sama premier njëkkee. macha allah <laughs> sama jarbaat la xale bu ndaw la. allah moom itamit. inconnu au bataillon xale bu tuuti mhm. waaye xam nga lan la machine Sénégal euh, euh, kii électeurs ñaata la ñu maa fii six millions et quelques six millions et quelques six millions et quelques parti yi seen militants yi ñoom ñëpp tout tout parti confondu ba ba bëri matul deux millions ñoom mhm. ñëpp mhm. mais boo gisee xoolal razzia bi am xale yi lu ñu songee bureau de vote yi xoolal sans xam ni sax ñu ñuy voté xam nga ñoom li ñu xam yéen parce que xam nañu kii marron bi gis nga après TikTok loo euh, bi bu am fas bi marron beige bi dañu sama jànk yi da madame ñaa kii euh, euh, bi lañuy xoolal fas bi lañuy jël di ko <laughs> parce que tout simplement mooy li ma la wax sénégalais ñoo mere <laughs> ñoom wàllu as Sénégal bu ñoom Papa Doudou Wade <laughs> bu PDS Euh, xam nga ne ñoom tam jeexal na dinañ si ñëwaat. loolu dinañ si ñëwaat. Euh, euh, beneen opposition bi jeexal na yeewu askan moo fi ne. <laughs> Ousmane Sonko porte tam xoolal comme par hasard xoolal bu baax maa fii li ma la wax. <laughs> fii yeewu askan wi gagné. mooy fi Sonko dem te Sonko wax dëgg yàlla je lui rends <laughs> man bokk naa si ñi nga xam ne xam nga Sonko man duma ko may dara. waaye may man xam nga nu ma man bëgguma kenn bañuma kenn. man man ku bëgg Sénégal. waaye def lu baax mais xam nga laa wax fii Euh, euh, te tam dama koy répété nañu ma dama na xale yi génneel sama sama yi may wax la may wax comme daf lee dañ nekk ci vaar mi ngi ci YouTube nañ koy génneel di ko mm-hmm. doxantoo mm-hmm. parce que Sonko dafa def lu rëy loo xam ne te gis nga gis nga euh, dans la vie il faut être courageux mm-hmm. xam nga courage la mooy li ma sànq ne ñi nekk ci askan wi te déposé wuñu seen candidature rëccu nañu parce que xam nga lu tax Sonko il a choisi et a pris le risque dem Ziguinchor mu dem Ziguinchor Macky Sall comme ni ma la Macky Sall a Macky Sall a joué et perdu. dafa ay mig magam parce que dafa am ay candidats moom Macky Sall dafa am ay candidats officiels. xam ne xoolu Diouf Sarr ñoom ñoo ko yàq la ah. xool am ay candidats officiels moom Macky Sall. ñii mu saraxe leen gëmu gëmu leen ñi mu gëm ñu ngi ci suuf. Mm. ñooñu la financé dooleel leen ñoo ñoo dem di xeex benn bokk yaakaar. même chose def aussi fële Ziguinchor Ziguinchor man je suis sûr moi que s'orienté wul ak ak ak Ablaye Balde te fekk. jël na Diouf kii Benoît Sambou ak ak Sané Seydou Sané mhm. jox leen ci teg leen ci kaw mais Doudou Ka li mu def lan la na fi ñukk ñee dem ànd ak euh, Ablaye Balde mais sa Doudou Ka boobu Aïssatou Diouf Fall est-ce que mën nañoo wax ne carrément trouble fait la wala il se cherche en politique non man man li nga xam ne mooy euh, légitimité aussi Doudou Ka mooy li ma wax rek ne Macky Sall li euh, mu li mu li mu li mu sombi dong lay naan mhm. moom moo créé ay duuduka yooyu nga xam ne ay incompétent ay nulaar par ñoo ñoo ñëpp nag façon xee xeet googu énergumène yooyu ñoo fees dell ci gouvernement Macky Sall ñoo ñooy ay bii xam nga ne yow ku jël ku day ne bii bi balde ñu tuumaal ko fa sàcc barke da moo njaay réew mi yëpp toog di xaar bu poñe mm. réew mi yëpp toog di xaar un geste fort ba pare euh, euh, euh, maa fii man ma kontaan ci élection xam nga tam ma kontaan ci résultat yi mm-hmm. dama wax dama yàgg wax ne politique affaire gentleman la mais surtout éthique ak morale da cee baax mm-hmm. benn sénégalais sénégalais yi nee naa la 6 million yooyu majeure partie bi 6 millions yëpp nekk ñu ay parti politique mm-hmm. ñu toog di ñu seetaan si internet yi dañuy seetaan la mm-hmm. dañuy déglu di déglu Aïssatou Diop Fall di mm-hmm. déglu njàpp di déglu Pape Ngagne di déglu kii ak kii x y di xool di natt Sénégal dañu am xel ba ñu tayoo xool gis ne ñii Macky Sall mu ngi tegal ay nit ñoo xam ne ay antivaleur valeur di protéger réew mii ay antivaleur la Macky Sall di prom di promouvoir. Mm-hmm. ñun ni ay nit yu tekkiwul dara ay sàcc ay wuyu ay bandi lay jël di leen protéger def ku ma am ndey am ku ma amul ndey injustice teg ko fi nit ñi lekk ñu naan ñu mu ñëw diñu xëral diñu diñu fatt ak ay teer ak ay meer ak ay kenn xamul mm-hmm. dégg bàyyi lekk beeg naan ji di jël ay wuyu ñooñu di sàcc suñu alal tabax ay ay ay yu doy waar jël war naa Macky Sall donc loolu ba Sénégal gisee loolu si lañu ne puusuf Macky Sall puusuf Macky Sall boobu nag euh, li kaw ñi koy incarné mooy genre Doudou Ka Doudou Ka yooyu te Sénégalais yi dañoo promouvoir dañoo sanctionner euh, euh, malhonnêteté sanctionner politicien véreux sanctionner politicien arrogant mm-hmm. mag waa Macky Sall ñu bëri arrogant seen Doudou Ka moo gën a arrogant kaa ñu arrogant moom Doudou Ka moom Doudou léegi façon xeet googu ñooñu la Macky Sall justement war a tirer les conséquence ci remaniement am bii remaniement am bii mooy su bëggee sorti honorable mhm. li mu war a def d'abord mu jubóog sénégalais moom Macky Sall ndax sénégalais yi dañu ko bàyyi mhm. mere ko mhm. sénégalais yi ñoom mere Macky Sall mere gi ñu mere Macky Sall nag ci la ñoom Sonko profité te ils ont raison parce que dans la vie opportunité yaa ngi dégg ci journalisme ñu ne la le journalisme c'est des moments dafa am ay yoo xam ne boo ko saisirul jeex na c'est man mi sa sa yaay ji ba taloo joolaa ci laa pëllee <laughs> stagiaire laa woon Johnson meeg maa ngi koy nuyu ba ma dégg dana xam li may wax dégg nga. Ah. ci lañ ci pëllee Sonko tamit am flair xam ne bii moment bii naa dugg mu pëtaxlu mhm. Barthélémy Dias ànd ak moom ñeneen ñi daw xoolal ñeneen ñi wóoluñu sa ragal defet ñun xaar ñu daw làqatu ci booy bi <laughs> fu faf otoraay bàyyi leen fi mais mais maa fii euh, li xew Sénégal tey man damay tàccu damaa kontaan mhm. parce que li tax ma kontaan mooy valeur la ñu